man la Vincent Ngour Ndiaye secrétaire général du rassemblement des patriotes républicains RPR. li ma mën a wax ci loolu mooy que ne xam nga justice boo ko xesee soupçonné rek décision bu mu munti joxati rek da ngay naan jaarul yoon te gis nañ que depuis des des années on peut dire que ne justice bi euh, considéré nañ que ne li ñuy lu muy génne ci ay décision jaarul yoon parce que yàgg cursus bi buñ koy suivre ak légui ci côté politique bi euh, décision bu mu jël rek fay nek en défaveur euh, wa opposition donc euh, lolu nonu man dama koy fustiger je crois que justice dafa nek fi pour tout le monde pour ñëpp ñi nga xamantene ay citoyens lañ waroñ di faral ñi ñi nga xamantene ñu ngi ci nguur gi di sonal ñi nga xamantene ne dañoo opposition ah man loolu moom vraiment je vois que justice bi dafa acharnement contre opposition. ça c'est une situation très grave non, non, non. c'est-à-dire ce n'est même pas digne que kenn koo xamante une haute autorité la ngay wax lu mel noonu. puisque man bi ma leen gisee ci ci ci ci ci ci télé bi man je ça m'a fait penser à une milice te je crois que waa waa pouvoir ñoom ñoo yore doole bi donc ça ne valait plus la peine que ñoom ñuy dem ji uti ay nervi di len di len di len di len jël hein, di di di len manipuler euh, contre les les citoyens loolu noonu du du du du du yoon waaw mam Mbaye Niang moom côté bobu noonu vraiment euh def na lo xamantene war ko def. xam nga opposition aussi ci ay droit am rek lay nek euh la marche dafa nek lo xamantene constitution bi ci bopam moko jox nit ñi mu nek seeni droit saa yu nit gisee loo xamante ne yaakaar nga ne li jaarul yoon dangaa wara marche opposition amul benen doole amul marche donc bu opposition euh, pour euh, euh, constitution droit pour ñuy marcher à chaque fois bu marcher pouvoir bon le préfet dit que mënul ay mënu aussi euh, nit ñi là aussi c'est le comble puisque man dama Macky Sall koy fal on avait vraiment confiance ci nañ dina jël ko mais depuis bu mu ñëwee ba léegi gis nañ lu bëri loo xamante vraiment mu ngi koy def ci ay déviance yo xamante war ko won def euh, loolu nga wax non dëgg la li bu gëna bu gëna récent moy moy moy moy lu mu nié né il n'a jamais dit que euh, premier euh, ministre de l'intérieur warul organiser élection mais ça c'est grave ñëpp gis nañ Macky Sall moy moy récuser le ministère le ministre de l'intérieur donc bu ñëwé tay pour faluwaat rek rek tax mu ne nag musuma wax loolu mais ça c'est grave day fàttali ne institution là c'est une institution une institution qui se dédie loolu noonu dafa grave xam nga du temps de Wade dañ doon wax que ne euh, euh, wax waxeetam dafa mel ni Macky Sall mesuré nak le poids de wax waxeetu Ablaye Wade boobu loolu lu mu def ci donc waron na xalaat que ne peuple sénégalais dafa dañoo am ay vertu yo xamante ne bëgg seen nit politique yi waxatuma nak institution diko yor wa président warul mukk di de rien que pour falluwaat Lolo c'est une catastrophe vraiment ça peut lui coûter très cher ci ci citoyen parce que ñun ay nit ño xamantene dañuy wax deug lolu lañu bëgg mu nek suñu nit man je suis un patriote un républicain C'est ma sama sigle de parti moy le rassemblement des patriotes républicains donc le violence fitna man je suis contre cela mais aussi il faut pas que le pouvoir pousse à l'extrême l'opposition di wax euh, euh, violence bëggul violence bëggul te fekk moom moo yore les germes de la violence parce que wax nga légui mbirum mbay ki wax waxu milice déjà ñom am nañ doole bu ci yokkaate ay milice pour lan la lolu du pour xex donc l'opposition n'a que ses mains donc fofu xex bu bëree bu bu naree am si ñom lay joggé mais ñun conviction lañuy dox ak bañ nasaxal réew mi ci yo xamantene ne ko ci yoon lolu donc saa yuñ ñu lolu nak su su su problème amé nañu xamné ñom ñoko andi mais l'opposition, l'opposition opposition opposition moom opposé maintenant il fera tout pour aussi qu'on ne marche pas sur ses droits voilà le donc la la mais violence nous ñun bëgguñu